salaamaaleykum Khadi, na def kebe kebe na ngeen def ana jamanka na ngeen def ak coono yi naka yi tey bàyyi nag ci jàmm bu baax alhamdulilah na ngeen def ana njaboot gi ah waaye yéen xadi yow ak ana yéen ku leen yar ah s'il vous plaît ah <laughs> wala asim seen yar bi man jaaxal yarungen walla asim yarungen yéen de séggi xool caméra bi sax daanaka mënu leen ko ku leen yar Ousmane moo leen yar s'il vous plaît damay laaj rek seen papa ngeen yar wala Ousmane moo yar ah s'il vous plaît ah waaye yéen gone yi yaru ngeen daal bi ma di de sama yaram bi sax da doon daw sama yaram da doon daw de ci yar bi ci gi yàlla na leen yàlla may xolub muñ xadi yàlla leen yàlla may xolub muñ li dal seen kaw de metti na metti na lool fii ne damay imaginer bu fekkoon c'est le bu fekkoon na ci kaw Mariam Fall Sall la dal nu mu koy dundee waaye yéen ni ngeen koy dundee wallaay asim référence ngeen xanaa yéen mën du yéen école du kii Comunidad estás más antifas América que sama yang boku i jigen yep union for fundal estás prior. Wala siu pele mulu nek. Usman de yan nele. Wala asim Usman yan nele. di leen yëgal nag na li ngeen di dund seen xol na leen leer ne ñu ngi koy bokk ak yéen ñun ñii suñ xol yi neexul de waaw Ousmane nag xam naa ne préparé na leen comme ni mu préparé Sénégalais yépp ba muy dem nee nañu bu ma fi dégg kenn yéen it xam naa ne bëgg ngeen a jooy bëgg ngeen a wane seen souffrance ak seen seen douleur waaye ni leen Ousmane préparé da leen préparé ci force lii la ñuy wax walai asim wala Achim grande dame ngeen mat ngeen première dame mat ngeen deuxième dame waaw aw ma ci sikki sàkk di leen xamal rek ne s'il vous plaît bu fekkee ne Ousmane mii lii nga xam ne noonu la leen préparé ak ñi nga xam ne noonu ngeen di dundee bu fekkee ne incha allah buñ leen ko delloowee man ngeen koo faj man ngeen koo toppatoo man ngeen koo delloowaat ba mu ànd ak sagoom dinañ def ñun la tuubañ delloowaat leen seenu Ousmane Ousmane moom dangeen ci jot moom Ousmane da ci jot ci nii wala ci ne waaye nag sama xol la sedd na ci yéen mosañoon de yéen ñii ci ñuy jiita réew mi ngeen di bokk Ousmane jiitu ngeen toog ci wetam ndax seen yar bi seen teggi lu ngeen mënta doxal am wallaay asim waaye <laughs> yéen jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ci yéen